asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk talibe yi ñu ngi leen baax yéen ñi nga xamante yéen topp ci li nga xamante di youtube bi di ñu topp ci tiktok bi ñu ngi leen di nuyu baax a baax ci pass bi nga xamante moom moo di Serigne Abdoul Khadir ba jili ah, ñu ñëw fii fekk ko ci këram ci 28 ci fi nga xamante moom moo di fi den ak bitik américain bi fi ngeen ko xamee foofu lañ fekk ngir fa siina waxtaan moom ci tomb bu am solo boo xamante ne tomb bu jara waxtaane la ndax tomb la boo xamante yitteel xam naa dama koy jox kàddu gi rek moom mu nuyoo tont yi waaleykum salaam wa taala wa barakaatu Cheikh Moustapha ñu ngi lay fay di la dalal di am mbégte ci jataay bi ñu amaat ak yow ndax boroom xam-xam nga te ni ngay laaj xam nga ko bu baax a baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo top ak di ñu déglu ci internet bi rawatina nag ci chaîne bi ak suñu compte yi muy TikTok di amaat ak ñoom mbégte di dajawaat ak ñoom ci waxtaan di leen nuyu bi gën ci nuyoo yi muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawit janaani safi amaani wa zid te ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu kàttan ak xel ak xol bu ubbeeku bañ mën a joxe loo xam ne ñi ñuy topp di ñu déglu danañ ci mën a jariñu wala ñu jële ci njariñ donte ñu ëpp ci ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam kon ñu ñi ñu ngi leen di ñaanal suñu kàddu fekk leen ci jàmm bismillah jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir Ba ñu sant la gërëm la baax jaajëfal la ci dalal gi euh, si Abdul Xaadir euh, moom mel ne kon dama leen di fàttali rek bala maa dem numéro am képp koo xamante yaa ngi may dégg te nga bëgg a jokkoo moo nga jokkoo moom ci 77 743 30 laaj bu njëkk bi moom moo di bu ñu bëggoon a xam lan mooy njabar lan nga ñuy wax. waaw Cheikh Moustapha day waxtaan wi ñëwaat waxtaan wu am solo la. donte waxoon nañ ci waaye mel na ne wax ci du jeex ndax saa yu ne mën nga cee wax lu yees loo waxatoon ndax dafay lu yàgg loo xam ne daanaka mook doomu adama ñoo ànd te dafa bari lu muy gàllankoor nit ci fànn yu nekk nag mën ngaa wax ne doomu aadama ñaar rek koy gàllankoor wala ñett muy liggéey ak bët wala garab wala seytaane ñaane gàllankoor bu am rek yi génnu ci te bu ci nekk sorewul ak sa moroom kon nag thème bi nga jël muy njabar ñu war ko waxtaanee waat thème bu am solo la ndax saa yu ne war nañ koy waxtaanee ndax dafa bokk ci dundu doomu aadama te du nekkul loo xam ne yow danga koy teg bat te ñaare nit ki balaa dem ba xam ci dara rek day fekk boobu mu yàq lu baree baree bari ci moom wala ci entourage wala sax ci alalam kon jabar boo koy jàngat mooy loo xam ne daal doo gis doo ko gis sababam kom feebar nu mel nga xam ne microbe yi ak virus yi nga xam ne moo yàq ci biir yow sa sa sa sa bët sa bëti kese mënu koo teg bët njabere lu mel noonu la lu muy yàq ka def nekkul loo xam ne bët da koy gis. kon mooy kullu amrin yuxfa sababuhu waaye cosaan li nag mooy jël dara wëlbati mu nekk leneen yooyu yëpp ci xeetu jabar lay bokk kon jabar mën nga ne mbir la moo xam ne benn day soppi nit ki ci jëmmam wala mu soppi nit ki ci alalam wala mu soppi nit ki buñ ne jëmam nag xelam mi ngi ci wér yaram mi ngi ci leneen ak leneen lu aaju ci jëmmam mi ngi ci wala mu soppi jëmmam ci entourage am lu ko war digganteem ak nit ñi dëddale maa nga ca ak leneen ak leneen wala sax mu soppi alalam yàq ko environnement ak am-amam ba am gàllankoor. kon loolu mooy dëgg-dëggi njabar buñ ko tënkee waaye njabar nag fu ko alxuraan tudde ci as-sihra boo jànge laay boobu muy wax ne baad auzu billahi min ashaytaan arrajim wattabau ma tatlu shayatin ala mulki suleyman wa ma kafara suleymanu walakin ash-shayatina kafaru yuallimuna annaasa sihra wama unzila ala almalakayni bi baabila haruta wa maruta wama yuallimaani min ahadin xata yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kon nekkati njabar dëgg dëgg njabar bu ko di wax mooy balaa nit di ko def wala nit di ko deflu xolam dem na ci ba ak weddi yàlla kufur ci ñu koy jàng kon njabar nekkate bala ko nit man dëgg-dëgg day weddi yàlla ndax yëfi saytaane la ba tey bu nit di demee dëgg-dëgg bay njabarlu dëgg dëggi njabar moom it day egg ci weddi yàlla ndax ñaare lañ koy def defloo ak weddi yàlla da cay laal benn muy naan sàngara wala muy yoole nit yoole nit mooy joxe bakkan boo xam ne sa doom la wala sa say waajur wala say mbokk kon loolu mooy njabar sacrifice wala boog ñu def loolu loo xam ne lislaam bañ na ko xam ne wóor na ne yow lii ngay def ci diine bañ na ko mooy ray loo war sa rey wala nga def loo xam ne lislaam araamal na ko nga def ko loola kat nekkate kon mooy njabar te moo la yóbbu ci ak kufur kon loolu mooy dëgg-dëgg njabar kon loolu buñ koy wax fétiche dugg na ci biir ak mbooleem xeetam nga xam ne day lëkkaloo mbirum seytaane ba jëmale la ci jëmale la ci weddeloo yàlla ngir lenn nguur goo bëgg ci àddina wala poste boo bëgg ci àddina wala alal joo bëgg ci àddina wala daraja joo bëgg ci àddina loolu jëmale la ci weddeloo yàlla loolu mooy ak njabar dëgg-dëgg njabar kon man nga ne kon bari nañu ñuy tudde ay njabarkat fekk boobu duñu ay njabarkat ndax njabar ki koy def ak ki koy def lu ñaare faaw da nga jëf loo xam ne yow dalay jëme ci ak wedd yàlla wala dalay jëme ci génn la ci lislaam kon képp koo xam ne dangay jëfandikoo loolu wala ngay dem ñu la koy def defal nga nangu ca loolu kon génn nga ci lislaam ndax fi mu na xeeti njabar yoo xam ne dañ lay wax ne yu baree bare yoo xam ne daje na moom dañ lay wax ne jox ma sa doom wala yu mel noonu ngir alali àddina wala jox ma sab cër ngir alali àddina wala boog li ma defal dootoo julli ngir àddina wala dooto dootoo euh, dem dootoo dem bàmmeel ngir àddina yu mel noonu wala boog foo toll da ngay mooy yàlla yooyu yëpp xeeti màndargam njabar la kon loolu ñu dégg ci ne euh, ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo ci wàllu alquran di ci def lu mel nii ndax yonent bi sala salaam euh, alquran yàlla da caa def baatin boo xam ne xumaalul aw jux la mooy ni ko mën a jëfandikoo ci lu baax mën nga koo jëfandikoo ci lu bon mën ngaa ñaanal nit jaarale ko ci xaatim mu faatu mën ngaa ñaan nit jaarale ko ci yàlla ñu jële ko fa. man ngaa ñaanal nit sax ñu mu xabtalu oto mbëkk ko wala mu xabtalu ci lu bon wala mu xabtalu ci génn ci génn dara wala mu xabtalu ci wàcc jabaram yooyu yëpp ñaan daf koy def te doo koy def lu dul ci alxuraan ndax alxuraan xumaalul aw juux la waaye boobaa mënee su ko tudd nag njabar xanaa kay la ngay jëfandikoo ci alxuraan nga boole ca loo xam ne dafa araam ngir wàcc alxuraan loola bu boobaa day tekki weddi alxuraan tuutal alxuraan te day dugg ci alkofro kon ki nga xam ne day jëfandikoo loolu duñ ko tuddee njabarkat waaye def na bàkkaar bu mag boo xam ne war nañ ko caa yar te loola mën na koo tàmbal àjjana mën na koo tàmbal sawara loolu mooy différence ki nga xam ne day def dëgg-dëgg njabar la muy jëfandikoo jëm ci weddi yàlla ci kufru billah bu leer a leer mu xam ko ak ki nga xam ne xañ na alxuraan ji nga xam ne jàng na ko man ko am ci ay sirru ñu tudde lasaraar mu koy jëfandikoo ci loo xam ne baaxul kon loolu mooy seen différence njabar nag day jëm ci jëm nit ki muy mu yàq ko wala mu jëm ci la ko war ngir yàqal ko yaar la yàq ak yàqal yàq ci jëm nit ki la jëm yàqal ci la ko war la jëm bu dee yàq mën na yàq jëmmam mën na ko rey daf ko njabar goo xam ne da ko rey mu dee jóge fi wala mu dof yooyu yëpp danga koy gis wala mu làggi mu am wéridig goo xam ne dootu man dara wala sax muy njabar goo xam ne day génn lu ñuy tudde naawtal wala njabar goo xam ne dañ koy tëj kaso yooyu yëpp day jeexital ci nit ki te loolu ci jëmmam lay jëm kon yooyu yëpp nga xam ne ci jëmm nit ki lay dal mooy mu yàq ko mu yàq ko te boobaa day yàq àddina am te yii yëpp kat nit ñaa ngi koy def seen moroom bu dee lu jëm ci alalam nga xam ne da koy yàqal moom léegi yàqut jëmmam waaye day yàq alalam bu dee commerçant lay def boo xam ne bu ci marché bi yàlla dimbali ko mu am client di jaay am na kook loolu neexu ko mu ñëw yàqal ko ba liggéeyam yàqu mu daanu dootu yor dara benn mu yor ay bor wala lu mu jaay dootu jarati wala dootu amati client bu fay dugg yooyu yëpp nit ñi ñu ngi koy def seen moroom te luñ mën a teg bët la benn muy boroom place boo xam ne palaas bu am solo la ah, xañ na mo bokk ak moom liggéey ak ki ëpp mam njàng njëkkuma fi ba noppi am par poste bi awma poste bi mu jug ci daaneel ko mu sàggan moom it bañ jële ko fa ca poste ba wala mu def mu def fa loo xam ne loola da ko fay jële bu dee ku mën a jàng am am xel yàlla ubbi am xelam ba tey ñu yàqal ko ba ba am xelam walbati ko ci njàng moomu bu dee ku yiw ñu xiirtal ko ci mooy yàlla wala sax lool laalati mu yàqu nga xam ne sa loxo bi dootu mën a téye dara lépp loo am boo ko ca defee mu yàqu nga xam ne da ngay dem ba ñu jaay say kër wala nga jaay say oto wala nga jaay say bien nga jaay say takkaay ba yaakaar ne projet bi bu ma ko taxawalee dana dox projet boobu boo ko taxawale mu gën a yàqu moo tax yàqu ak yàqule la jaar yooyu yëpp njabar daf koy def te nit ñi ñu ngi dund lu mel noonu su ko defee nag yu mel nii ay màndarga la yoo xam ne nit ki mën na koy nemmiku ci boppam bu dee kuy say ñu tàggale koog borom këram maanaam ñu dëddale koog borom këram bu dee ku góor ki mën nañ ko dëddale ak soxnaam wala ñu takk ko xala wala am xelam dootu dem ci moom takk xala mooy boo tiimee ci moom dootoo mën dara maanaam dootoo nekk góor ak yu mel noonu yu bare bare mi ngi xew ci nit ñi wala sax ñu naawtal ko génn ko mu abandonné ak njabootam ba ak njabootam dootuñ ko teg bët te mu ci dëkk bi jege lan lool du leen woo téléphone du leen yónnee dara du leen nemmiku sax yooyu yëpp ay xeeti liggéey daf koy def te mu nekk loo xam ne nit ñi dañ koy dund dund bu wér-wér bul fàtte na njabar nag ñuy wax ne amu am amut dalee na dalagut. maanaam ñaare lépp loo xam ne tudd nañ ko rek ñaare lu am la ndax kan yonent alayhi wa sallam nga xam ne moo gën ci yi njabaroon nañ ko te hadis bi sayyidatuna Aïcha nettali na ko mu ne suxira nabiyu sallallahu alayhi wa sallam xataa kaana yutaxayalu ilayhi annahu yafcalu shay wa maa yafcaluhu xataa kaana yataxayalu zaata yawmin daa wa daa summa qaala ashartu anna allaha aftaani fiima shafaani ataani rajulaani fa qaacada axaduhuma cinda rasiyi wal axar cinda rijli fa qaala axaduhuma lil axar maa wajcu rajuli qaala matbuub matbuub mooy kuñ faj kuñ faj wolof kuñu liggéey la koy wax qaala wa man tabbahu ku ko faj qaala Labiid ibn al Acam yahuud bi ñu tudde woon Labiid ibn al Acam moo liggéeyoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu ci ray ko jublu ci ray ko moom na sëñ Moussa Ka di wax ne faj nañ ko tàbbal nañ ko ci biiru charwaan charwaan jox nañ ko tooke te déewu ko doy kiimaan qaala fi maaza qaala fi mishtin wa mushaaqa wa jaffi talaati zakarin qaala fa huwa qaala fi biiri darwaan kon ila axiri alxadis kon loolu lu sax la ci yonent bi sallallahu nga xam ne njabaroon nañ ko ngir jublu ci rey ko waaye rey ga jàpput waaye tal na ci moom ba nga xam ne léeg-léeg mu mel ni day def dara fekk boobu defu ko bim ñaane suñ borom subhaanahu wa di ko ñaan yàlla teggi ko ginnaaw bi la ko yabalal yaari malayika yooyee ci kenn ki ñëw taxaw ci bopp bi kenn ki ñëw taxaw ci tànk yi ndax moom xamutoon kan moo ko njabar ci la xamane ne Labiid ibnul Asam ko def ci la xamane ne it ci biiru Charwan lañ ko tàbbal ci la xamane ci karawam la ko la ko la ko liggéeyee ak tóortóoru tàndarma bu góor bu waw kon liñ mën a dégg ci hadiis bi mooy nit mën laa mën nañ laa jublu njabar la fatu du am lam bëgg waaye nag dana am leneen lu muy jeexital ci yow leneen lu muy jeexital ci aw ah ba tey mën nga caa ne kii njabar faaw day am benn lu muy jël ci yow ci sa jëmm wala ci sa yére wala ci say asaar wala lu bokk ci yow wala mu jël sa tur wala xeet yu demee noonu loolu màndarga ci. leneen liñ ci mën a jàngee mooy ñaan ko dindi ndax yonent bi dara ñaan mu teggi ko waaye yàlla ci ci xarañam ak ci xikmaam ak tadabburuhi bu ko neexoon mën noon na ko dindi fi saase waaye na ngir jaarale ko ci sabab ñu mën a xam ne kon euh, ñaan day ànd ak sabab sab bi ñu boole la ka dindi ndax ñaari malayka yooyu buñ ñëwee ci sooratul falaxi ak sooratul naasi ci beneen nettali xadis moo toj njabar ga liñ ci mën a dégg mooy nekkati njabarkat ñépp lay jàpp kon njabar mën nga ni kenn mucc ci ñëpp la mën a jàpp kon loolu luñ mën a jàngate la ci yonent bi sallallahu alayhi yoo xam ne njabar lu am la te lu yàgg la te nit ki saa yu nekk mën nay ñaaw ñortu ñu ko koy def ndax ñaara ko koy def yow doo ko foog mën nañ la ko wax sax te doo ko gëm li feeg wanuñu la ko ci gént nga gisal ko sa bopp wala nga dem bett ka la koy defal ka ka koy def nga jàkkaarloo ak moom kon Cheikh Moustapha ñu ngi lay delluwaat kàddu gi ga ñëwaat ci beneen laaj. jërëjëf sëñ Abdou Khadre ñu sant la baax gërëm la ci leeral yu am leeral nga ñu sant baax a baax ci li nga xamante moom moo di leeral yooyu mbokk yi fàttali leen rek ne di jokkoo ak bi rek soo ko jokkoo ak moom incha allah ko fa waaye a ngi koy fekk foofu nga xamante moom moo di parcelle unité 3 foofu ci bi rek foofu la nekkee ngeen mën a jokkoo ci bis yi nga xamante ne dafa nekk ci lépp rek woote leen ci numéro téléphone boobu di 77 33 30 92 léegi nag sëñ Abdou Khadre ñu daal di jàll ci question bi question ñaareel bi nag moom moo di euh, njabar ak liggéey yaakaar naa am na différence bu am seen seen diggante lan mooy différence entre njabar ak liggéey. waaw lan mooy tàqale euh, njabar mooy asixra nga xam ne ñaare yaa ngi koy defee day weddi yàlla ak ñaan wala ak faju jabar xam nga ko waaye ñaan nag loolu yàlla moo ko santaane ci alxuraan yonent bi fedd la ko ci ay xadisam yu bare bari ñu gis ci it ay njariñam ndax ñaan alxuraan ñëw na ci lu bare bare qul ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ñaan nag dafa am ay maratib ñi nga xam ne def nañ ci xusuusiya xam yoon ya am ay sirru ci alxuraan ak ay xadis wala ay tegtal te tegtal yooyu moo xam màcc la ci asmaullahi wala mu màcc la ci xuruful quraniya muy lasraar xawaatim ak yu mel noonu wala bokk mu màcc la ci xam-xamu arrabxaaniya te loolu lu ci nekk nit ki da koy jàng ba ci xóot ay xóot-xóot waaye jëmmi nit ki mën ngay ñaan borom bi subhaanahu sa ajo wala seen gàllankoor wala sa wéradi mu tegtal la ki lay saafara wala ñu boole la ki nga xam ne moo lay faju moo lay faj te yu mel noonu yi ci gën a ràññiku mooy lu mel ne listixaar duwaaw listixaar nga xam ne ñaare yàlla mën na la caawan bunt bu koy saafara kon ba tey boo faju moom génnu ci génnul ci ñaan boo faju moom génnul ci ñaan ndax faju moom ñaan ñooy ànd wala sax faj lay wax ñi ñuy tuddee euh, sëriñ am na ci ñuy tuddee ay fajkat wala ñu ne kii ñaankat la wala fajkat la fekk boobu moom day boole euh, xam-xamu faj ak xam-xamu alxuraan maanaam secret alxuraan wala secret mag ñi ay ki tegtal mu koy jëfandikoo ngir xettali nit ñi. ci li nga xam ne dagan na loolu mooy différence am ak njabarkat kii lim koy yoon yim koy jaare ci alxuraan la ak ci xadis ak ci tegtal mag yi nga xam ne sore na ak bokkaale sore na ak yëfi saytaane day liggéey tur yàlla di jàng alxuraan di selal jege suñ borom ñaare moom may ko ijaabax wala bokk mu am ay secret yoo xam ne ci lay jaar ba jëmmi nit ki aajoom bu ñëwee mu gis ci dara bu dee tawatam la yàlla may ko ci xam-xam ba bu ñëwee ma mën ko caa saafara loolu ak jaamu yàlla gu mag a mag la bu dee jàngoro nag ak bu mën doon moo xam jabar la kun ni jabar loo gis rek li wolof di wax loxo bu lu loxo def rek loxo mën na koo dindi loolu yonent bi feddali na ko ci inna allaha anzala daa wa dawaa wa jacala likulli daain dawaa fatadaawu wala tadaawu bi xaraamin yàlla ci boppam moo wàcc jàngoro moo wàcce uh, garab te tawat joo gis rek garabam mi ngi ci wetam kon fatadaawu maanaam dee leen sàkku garabam di faju waaye nag bu leen di faju ci li nga xam ne dafa araam day jëma ci ak kufru li tax nit nag di def nit lu bon wala di ko liggéey mën nga ko tënk ci yaar yi muy soxor te loolu alxuraan tere nañu ko ba tey gis nit soxore ko mu am alal nga soxore ko mu am poste mu sox nga soxore ko mu am soxna su baax nga soxla ko ko mu am kër nga soxla ko ko situation baax nga soxla ko ko wala fiir nga nag daanaka mooy rakki soxor te bu yàggee dalay jëme ci nga koy jëf jëf ji mooy ngay def ay pexe ci zahir ngir mu ñàkk loola da ca gën a bon nag mu yóbbu la ci ngay def ay pexe baatin te mooy di ko njabar ak di ko liggéey ngir mu tàggoog loola te yaar yooyu mel na ni fii ba àddina di tukki yaar yooyu du fi jugee xañ na loolu la yàlla dogal kon loolu ku nekk war nga ci bàyyi xel. macha allah macha allah Cheikh bi macha allah tubaarkàlla macha allah am na solo lool tubaarkàlla mbokk yi 743 30 92 ngeen def jokkoo ak moom ci Touba la nekk ci 28 ci wetu bi américain bi sëñ Abdoul Xaadir ba jiili sëñ Abdoul Xaadir léegi nag ginnaaw ba nga ñu xamalee loolu pare nan la nit def nag ba ba ba ba mucc ci nga xamante moom moo di loolu nga wax ah, question bi ci topp nit def ba ba mucc ci. waaw Cheikh laaj bi nga mujjee laaj moom it la lan la nit def ba mucc ci njabar ba mucc ci liggéey. Euh, yàlla def na bade na nag mandarga yi nga xam ne ku lay fexeel ci gént buñ la ko wanee nga xam ko bade na yuñ ci def ci ci chaîne bi ak ci tiktok bi yaakaar naa mbokk yu bare bari bari na luñ ci jëlee ak luñ ci xamee ba sant borom bi subhanahu wa taala ngir bokk giñ ko bokk ak ñoom waaye bokk na ci li tax nga mucc ci mooy di càmbar sa bopp di càmbar sa yaram foo toll maanaam del si xaar say biir foo toll ba xam am na ay liggéey yuñ lay defam déet bokk na ci li la ciy dimbali di sangoo luy toj liggéey ak di ko takk yi nga xam ne dañ lay wax ne bul takk téere nag ñooñu bu leen déglu waaw ndax ñu ngi dem ci hôpital yi ñu leen di pikiir ak te leen di jox ay doom ñuy naan te doom yooyu kat xamuñu lañ ko liggéeyee te lii ñu lay jox. alxuraan lay doon ak ñaani mag ñi nga xam ne bu mujjoon ci sa biir sax mën naa nekk sabab ki nga texe ndax alxuraan ji yàlla mën na ko rusu ba du la du lakk bokk na ci it di suuroo luy toj liggéey ak luy aar sa sa alal ak luy aar sa njaboot ci def-def ndax aar sa bopp rek ak te aaroo sa alal aaroo sa njaboot mi ngi mel ni ah, kaaraange gu des lay doon ndax nit kat bu sonnoy ci dara ba am ko war am fu lay lu ko tiye li koy téye nag ñaar la li koy téye ci zahir ak li koy téye li koy téye ci zahir nga xam ne kon song ci zahir du la mënal dara ak li koy téye ci baatin nga xam ne kon song ci baatin nit du ci mën dara yar yëpp ñooy ànd ni zahir amee noonu la baatin amee saaxir mooy la ngay xam nit ko di ko def nga mën koy moytu baati nag mooy lu nëbb loo xam ne yow xamoo ko waaye nag boo amee ay pàggutaay ak ay fam yàlla mën na ca musal ndax fi mu ne am na gàllaaj yoo xam ne bu fekkee ku ñu liggéey la soo ko jëfandikoo nañu la ko waxee bu dee liggéey ba liggéey la liggéey buy raye la moom ma ko def da koy ray bu dee liggéey bu la doon tëral la moom ma ko def da koy tëral bu dee liggéey boo xam ne lu doon yàq sa alal la moom mu koy def alalam day yàqu li feek ñëwul ci yow bu fekkee borom bopp la sax day ñëw ci yow jégglu gàllaaj yooyu yu mel noonu am na am na ci xeeti càngat yoo xam ne moom it boo ko sangoo nga bëgg xam bu fekkee def-def dafa ne ci yow bu fekkee def-def dafa nekk ci yow dañ lay wax dañ lay wan keloko def wala ñu wax la ko gàllaaj yooyu am na am na ci gàllaaj yoo xam ne boo ko jëfandikoo ba takk téere bi bu fekkee moo xam kuy tibb sa tànk la wala yu mel noonu lum la def rek day delluwaat ci moom day delluwaat ci moom dina am loo xam ne nag ñaare ki nga xam ne day jàpp ne nit ñaa ngi koy xeex ba am gàllaaj yu mel noonu dañ koy jun ñi nag ci ay yëg-yëgam lu mel ne fi ne boo tëddee guddi gént lu mel ne am lu la xasan wala lu la mag ñi dañ lay wax ni bu boobaa yow bu ko tàpp ray ko rek mu wàcc waaw maanaam boo ko tàppee mën naa jeexatal ci yow waaye euh, boo ko raayee mu wàcc rek dootu def dara loolu tegtal la mag ñi daa ko def ci kilifa yi nga xam ne yu mel noonu day bari ñu leen di fexeel ak ñu leen di songu am na ci gàllaaj yoo xam ne day aar sa kër ba liggéey du fi dugg du fa dugg am na ca gàllaaj yoo xam ne day aar njaboot ba kenn du leen mën a liggéey am na ci gàllaaj yoo xam ne day aar sa alal ak yu mel noonu daal yooyu yëpp nit ki da ko war a farlu di ko def ci boppam ndax nit kat amut lu dul jëmmam te jëmmam buñ koy wax alalam ca la bokk ak njabootam ca la bokk da leen di war di bàyyi xel bu baax a baax te it àddina noonu la ko yàlla binde di ci am zahir dafa am niñ koy sàkkoo am ñoo xam ne boo koy sàkku ca ñoom ngay dem ndax fii ne boo demoon tribunal wala boo amee procès tribunal da ngay jël avocat bu lay layal ndax moo la ko gën a xam moo lay wax fii ngay jaar nii ngay jaar kasaalika it bu fekkoon ne wàllu baatin la nga jëm ci lu la bëgg a aar ci wàllu liggéey wàllu rab wala wàllu cat yu demee noonu da dem da dem ci ñi nga xam ne la seen xam-xam màcc ñu mën laa teg ci yoon adduna yaar yooyu rek ñoo fi am te ku bëgg mucc nag da ngay boole yooyu yëpp li mag ñi di wax rek ku bëgg a mucc lépp luñ la wax ne soo ko defee mucc rek def ko donte day nuru ay nax kon Cheikh Moussa mel na ni waxtaan wi mi ngi bëgg a cate kon ñu delloowaat la kàddu gi bu fekkee amoo loo laaj ñu amaatoo la laaj ñu euh, tëj waxtaan wi ba beneen yoon incha allah ba beneen yoon incha allah. macha allah macha allah xayru kalaam ma xalawa daal la xam naa daal sëñ Abdou Xaadir tubaarkalla macha allah Euh, wax ji moom tënku na te na solo lool kon ma fàttali leen rek ne képp koo xamante ne rek bëgg na xam ci njabar lu ci ëpp lii lu gën a lu gën a yaatu nga jokko moom gi si 743 30 92 77 743 30 92 la nekk nag fii ci Touba fi nga xamante moom moo dee bitik américain bi nekk ci went bi rek boo fa accès boo rabbi euh, mu yónni ndaw mu jël la ba ci kër gi sëñ Abdou Khadir xam naa ne waxtaan bi sax doyul ñu waaye xam naa da ngay daal di yëkkati yi la ak kontante ci waxtaan wi ñu amoon tey jii ak mbokk yi ñuy déglu di delluwaat di jégalu bu baax ci njuumte yi ndax képp kuy wax rek du ñàkk da nga am ay njuumte def di wax ne du suñu jublu waaye lépp loo xam ne yiw la buñ génne ah, ñu ñaan mbokk yi ñu doon déglu ñu mën koo jariñoo man koo xam man koo xam it di leen jox beneen dig daje ci beneen jataay incha allah in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib di ñaan suñ borom sotti jàmm Sénégal ba lépp lu ñu ragal yàlla fanqal ñu ko ci ab safaan yàlla dimbali ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg mi seen loxo yàlla dimbal leen kàttanal leen ci seenu xel ak ci ubbi seenu bañ mën a attan lu baree bari yàlla orienté leen bañ mën a teg seen tànk foo xam ne jàmm rek kay amaat ndax jàmm kat ci lépp xaj lépp lu waay bëgg rek ci jàmm nga ko mën a amee ko waay jënd rek jar na ko te wolof kat day wax ne wàññeeku du damm loosu jaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu